associé rien du tout. absolument euh, d'ailleurs euh, man maa ngi fàttaliku benn procès euh, bu l'observateur amoon en diffamation ak Karim Wade. mais juróom Karim Wade dafa xëy suba taal otoom dox ndànk ñëw tribunal toog euh, waa l'observateur ñëw gars yi àtte ku nekk argumenté Karim Wade génne fa euh, benn kaamil alxuraan ne Youssou Ndour bu ñëwee bu waxee ne euh, sama papa mosu koo jox 300 millions xaw ma na ñëw waat affaire yooyu. on a parlé on a rigolé après ñu àtte affaire ku nekk dem la vie continue. Mm. un procès en diffamation dëdul dara gis nga ne gis te li nga xam ne moom la Alioune di wax tam am solo Pierre. Mm-hmm. mooy Alioune Tine Abdoulaye Bathily ak peut-être yeneen sénégalais yu mel na ñoom c'est des sénégalais yoo xam ne dans plusieurs zones d'Afrique woo nañ leen fa ñu étudier fa ay conflits xam lan moo jur conflit jamono ji mooy représentant Nations Unies fële ca Mali. exactement mm-hmm. Ablaye Bathily fait la même chose en libi mm-hmm. te gis nga dama mës a dégg Ablaye Bathily mu wax assemblée nationale bii bi mu fa nekkee député mm-hmm. wax ne suñu réew mi bu ñu deful ndànk. ñu yóbbu foo xam te boobu il était député donc Macky Sall n'était pas président Wade c'est Wade qui était président dinañ àgg foo xam ne point wu non recul lay doon. Mhm. parce que dafa jàpp ne en Afrique généralement les conflits yi koy jur la jeunesse désœuvrée bi Lamine Abdoulaye Sarr doon wax sànq ci la bokk mais les conflits fonciers yi nga xam ne dafay bari. ci dans les zones rurales day indi day indi ay ay ay ay jàppante souvent mais xoolal Sénégal li nga xam ne moo actuellement le président de la République Macky wax na ne su jotee dix alertes par mhm. journée les neuf viennent du foncier 99 pour cent exactement léegi nga boole ceeg cette jeunesse là waxuma sax cette jeunesse désœuvrée mais révoltée yi nga xam ne ñoo de ci mbedd mi le sentiment qu'ils ont les jeunes sénégalais moo di ne bu njëkk su leen état daawul taxaw dinañu am ay religieux yoo xam ne mu tudd Serigne Abdou Aziz Dabakh mu tudd Serigne Abdou Lahad Mbacké mu tudd mhm. euh, Yacine Thiandoum yoo xam ne bu ñu daan yëkkati seen baat les jeune sénégalais ont le que ni ñoom kat am nañ ay yoo xam ne bu ñu bu seen rangooñ tuuroo comme on ñu fompal leen ko ñu am ay médias yoo xam ne à chaque fois jafe-jafe daan am ci réew mi médias yi dañuy jóg taxaw di ko wane ba xale yi gis ne ils ne sont pas seuls dans leur combat mais euh, euh Pierre del déglu les jeune sénégalais actuellement ils son révoltés contre tout le monde contre tout le monde les religieux les médias les politiques le monde économique les sportifs les lutteurs ñëpp ñëpp ñëpp ils sont révoltés contre tout le monde pourquoi parce que ils ont le sentiment que ni suñu amee lu leen naqari non seulement amuñu ko ko faj amuñu ko leen ko jooyal mais ça la seule réponse que l'état du Sénégal a pour ñoom mooy envoyer leen ay policiers ak ay gendarmes c'est ce qui se passe à l'université de Dakar mm-hmm. là on parle de Pastef mais mm-hmm. euh, laissons le tranquille euh, regardons ce qui se à l'université combien de fois ngay journal fii midi sa reporter ne la gars yi ñi ngi génn université policiers yi ña nga fa ñi ngay sànnante xel ñi ngay dóorante mais c'est ce que tous les jours les marchands ambulants de Sandaga bërki Dembo Ndiaye bi ñu fiy kaas di kii lan la leen envoyé la police ak yeneen va vers des yoo xam ne mu neex ñu mu naqari ñu il faut calmer te loolu moo daan am ci diggante Abdou Diouf ak Ablaye Wade Abdou Diouf ak Ablaye Wade seen seen antagonisme moo gënoon a metti mhm. foofu Ousmane Sonko Macky Sall ak guñ foofu ab bul fàtte ne diggante Abdou Diouf ak Ablaye Wade seeni xeex tax na ñu rey fi benn juge fi un juge constitutionnel mhm. mais dañ daan def ñoom suñu demee ba réew mi dem foo xam ne débordement na naam ku mel ne Serigne ab Aziz Sy Dabakh yëkkati kàddoom wala ku mel ne Hyacinthe Thiandoum su ko defee mhm. ñu mel ne ay Famara Ibrahima Sagna ñooñu ñañ lañuy envoyé kër Ablaye Wade ñu dem waxtaan ak Ablaye Wade et les choses reviennent à la normale parfois sax gars yi danaan dañuy convaincre Ablaye Wade mu génn réew mi dem France toog fa quelques mois le temps que les étudiants se et tout mu ñëwaat réew loolu moo koy doxal mais su fekkee dañu nekk ci benn confrontation boo xam ne ku ci nekk da naan da nga jël sa bakkan wala ma jël sa bos mais ñun on est on est en danger et on tous en danger et ça faut avoir le courage de se regarder en face et de se le dire il faut naan li xew fee mënul xew fii ñi li xew feneen euh, Pierre ay africains comme ñun la xew seen réew. des mm-hmm. gens intelligents wala aussi intelligents que toi. mais Tafa situation boobu kan ngay imputer la responsabilité est-ce que da a une responsabilité am nga sa responsabilité. Uh-huh. mais la responsabilité principale incombe au président de la République. wax nga ko léegi. Mm-hmm. tu as à Lune Tine que ñun faluñu ay faucons. on a élu Macky Sall. Mm-hmm. Ousmane Sonko mi ñun faluñu ko. amul compte bu mu ñuy rendre. Macky Sall la fal dénk ko réew nekkoon na réew mi nekk ci jàmm ak salaam. Mhm. mu diggee ak ñun ay contrat yu leer parce que wax naa ne Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ñoom ñëpp mën nañoo jàpp ne dañ leen élire ci ay malentendu Senghor tubaab bee ko bàyyi Abdou Diouf Senghor a ko jox Abdoulaye Wade on en avait marre de de Abdou Diouf. ñu jël ko teg waaw mais Macky Sall contrat bu leer moo ñu boole. contrat boo xam ne moom ci boppam moom moo ñu ko définiral ne ñu yoonu yokkute politique nii laa koy defee institution yi Ramatoulaye di wax nii laa koy defee le mandat présidentiel nii laa koy defee cest à contrat bi ak ñun ak Macky Sall dafa leer man moo tax je pardonne rien à Macky parce que c'est comme quand tu recrutes un footballeur tu as un contrat clair net et précis quand tu recrutes un lutteur mu war la bëreel tu as un contrat clair net et précis di nga def face à face après nga def face à TFM après ngeen dem bëree su ngeen bëree ba pare ngeen ñëw defaat face à face contrat là c'est à respecter Macky Sall n'a respecter le contrat qu'il a signé avec les Sénégalais te li tax ma ne je refuse d'envoyer les deux euh, à dos mooy tey le contrat bi ñu signé ak Macky Sall Pierre waxalal yàlla rek su ko respecté woon réew tey su Macky Sall ne woon maa waxoon ne du ma dem 2024 te dinaa ko respecté duma ci bokk les sénégalais dañuy nekk ci jàmm ak salaam xoola bu ñu dem campagne ce sera un carnaval. un carnaval boo xam ne les gens vont danser et chanter voter que leen neex mu nekk président mhm. qu'il s'agisse de Mame Mbaye Niang ou de Pape Malick ou de Ousmane Sonko mhm. l'essentiel c'est que les Sénégalais président bi ñu bëgg c'est Rama oui euh, Pierre li may ajouter rek mooy aussi euh, je pense que Moustapha li mu waxee ni jeunes yi tey man c'est surtout la jeunesse là man ñoom euh, gën a a intéressé parce que jeunes yi xam nga mi ngi koy wax naan amuñu fu ñu fu ñu fu ñu jooyee mhm. da ngay le chef de l'État defoon na sorti pour ne hmm. je vous ai entendu la leen hmm. wax pourtant message boobu dañ doon wax en ce moment là que euh, jeunes génn ñii ne pour Ousmane Sonko tax et tout alors que moment boobu dañ nekkoon ci moment de confinement nekkoon nga xam ne la plupart ay ambulants la ñu ko ci nekk yaa ngi xool loo yóbbu sa biir kër ñu confiner leen amatuñu benn euh, source de revenu amatuñu woon mhm. dara ñu dégénéré ba génn benn instant dañoo mhm. rebellé mhm. boobu li ko indi mooy tout simplement que aujourd'hui état bi nga xamante ni yaakaaroon nañu aujourd'hui li indi euh, déglootuñu religieux yi c'est vrai déglootuñu benn autorité la preuve da ngay dem ci réseaux sociaux aujourd'hui sa mm-hmm. manque de respect qu'il y a envers ah, il a quelqu'un en ligne on dirait euh, waaw Moussa mm-hmm. Sène allô Moussa Moussa foo nekk nii waaw ñu ngi euh, ci Medina. Mm-hmm. fii nag affrontement ci nga fi mooy diggante ñaar ay nerf yi nga xamante ni dañoo ne ci lu ñu wax te d'ailleurs sax ñu bëri lañ. dañoo yor ay jaase euh, lu ne lañ yor. ñoom ñu ngi sànnante ak population ci Medina. jaasi nga wax jaasi. jaase waaw ñoo ko gisal suñu mhm. parce que. waaw vidéo ba la jaase la bu dee suñu kuréel suñu ko dugalal ñu gis léegi jaase la. waaw jaase la ñoo ko gis kay ñoo ko gis. Mhm. bu euh, bu live bi nekkoon fii ndaxte gisaati mi ngi nii sama kanam. moo yor live bi mais sinon dañ leen koy tegtal ngeen gis ko seen bët jàppante bu métti la diggante euh, ñi nga xamante ni ñoo euh, ay nervi ak ñi nga xamante ni ñoo di population euh, Médina bi xeex bu tara tara tar moo fi am ci diggante ñaar ñooñu dafa pëccaxoo ci côté yu nekk nag lay ndaw di sànnante ay xeer justement te kenn xamul lan moo ko waral am na ñoo xamante sax si ñoom ñu ngi frustré wu naan waa mairie bi la ñii di leen kii attaqué naan non waa mairie bi ci yoon nekku ci ndax situation bi dafa jéggi dayo kenn mënu comprendre qu'est-ce qui se passe kenn mënu bi mhm. dégg daal dafa jaxasoo gis nga ba coxoon na euh, isaatin yow image yi ñu ko euh, nii di ko am ay jaase nga gis wala la gisoo ay jaase voilà Pierre Edouard mu di nag loo xam ne moom lañ ñemee ko fii ci Médina en tout cas jaxasoon na lool ndax euh, du sax ñi Moussa di wax kese ndax gis nañ ay ndaw yu taxaw ci benn wàll yeneen ndaw taxaw ci benn wàll en tout cas daal euh, affrontement entre population mën nañ ko sax wax euh, fii nga xam ne moo di à la Médina ndax xeer yi moom ñun suñ taxaw sax daanaka euh, Moustapha ak Pierre doo xam fan ngay féete ndax xeer yi fu nekk lay jóge ah, ñoom ci seen biir ñooy jàppante ak am ci ñoo xam ne na ay gros bras lañu yoo xam ne ils sont armés jusqu'aux dents voilà ndaw yaa ngay daw ña ngay daw wutali